Adama Sarr maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi lay fay bu baax. Adama Sarr ngay maire bu Kër Massar sa zone bokk ci gox yi nga xamante ni fi ñu toll nii ndoxu taw yi sonal na leen lool ah, ñu koy wax inondation ban analyse ak tamit mën nga ñëwaat ak ñun ah, ci situation bi nga xamante ni actuellement waa Kër Massar ñu ngi koy dund ndax taw yi taw ah, fan yi fii ci Ndakaaru. waaw Kër Massar euh, moom comme Sénégal yëpp wala comme Dakar yëpp nu mel la mel rek mun naa ne tey jii foo laal rek moo ñu métti Kër Massar Nord man démb man mi joxe yow démb presque ay trois heures du matin laa tëdd parce que maa ngi woon si ndox bi ànd ak tamit autorité yi nga xamante ne ñoo fi nekk di xool naka la ñuy masoo population bi donc situation bi bu koy joxee may wax ni rek. Euh, li métti fépp moo ñu xuri Kër Massar noor wax dëgg yàlla quartier yi ci bëri tey jii nañu inondé nañu am ndox maanaam mbënn mi da leen sonal bu baax a baax a baax. voilà kon population actuellement fan la ñu nekk euh, dañu génn luy ji dañu euh, dañ leen dëkkal ci école yi naka lañ koy dundee carrément. waaw population yi fu mu toll nii kenn dëkkalu leen ci école kenn defalu leen ay tente parce que plan Orsec bi nga xamante ni état bi da ko lancé eggul Kër Massar n'est pas encore effectif à Kër Massar. Mhm. donc population yi wax dëgg yàlla ñu bëri génn nañ seen kër. mais boo xoolee ñu génn yëpp dañoo génn ak seen i moyen bopp dem xool fu ñu dem dem luwe wala dem seen i kër mbokk mais wax dëgg yàlla fu mu toll nii amul kenn ki nga xamante ne relogé wala ñu yóbbu ko fi nga xamante ne état bee ko yore. Euh, pour yow taataay maanaam inondation yi Kër Massar lan moo ko waral euh, zone yi ñu euh, dëkk maanaam dañ fa warul dëkk wala assainissement bi moo am problème. waaw boo xoolee causes yi li ko waral dafa bëri. Mhm. dëkk fi nga waral dëkk am na. ñàkk canalisation am na. mais encore une mauvaise gestion du foncier am na. parce que man mii di wax ak yow tey gii Mm-hmm. wax dëgg yàlla ci wàllum suuf lay liggéey je suis un professionnel du foncier mais tey jii dafay yomb trop nga jël benn euh, trois hectares wala quatre hectares utal nit bàyyi mu def ko ay lotissement jël parcelles yooyu jaay ko jël xaalis bi def si poosam dem yoonam ñu ngi ko jaay ñëw dëkk deux ans trois ans mu taa nit kooku doo ko gis donc pour man état est l' état responsable parce que bëri na fi ñi nga xamante ne si tey état daf leen di jox ay bail wala titre foncier ci ci ci ci ci dëkk yi ñu def seen i lotissement def seen i def terrassement dem seen yoon jaay parcelle ay dix millions quinze millions jël xaalis boobu encaissé ko dem seen yoon ëllëg bu tawee ñooñu doo leen gis tey jii dem nañ benn cité bu ñuy wax cité Wardini mhm. euh, la situation est chaotique foofu noonu tey jii ana Wardini moom mi nga xamante ne moo jaayoon ñooñu parcelles yi ay cité ay cité bëri na ay cité yoo xamante ne wax dëgg yàlla état bi mooy jox les promoteurs ay po ñooñu def seen i lotissement dem seen yoon calvaire bi noonu lay continuer donc euh, mauvaise gestion du foncier am na si wàll ñàkk assainissement am na ci wàll ñàkk canalisation am na ci wàll moo tax nag dafa jot tey jii ñu toogaat xool naka la ñuy yoree suñu suuf parce que dafa yomb trop ku jug li jox la suuf nga def lotissement def li ngay def jaay jël say milliards dem si yoon après askan wi nekk ci jafe-jafe. Euh, ñu gis ni euh, kile di Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur il y a juste deux trois jours def na déclaration di tirer. un bilan maanaam euh, di rafetlu di wax ni plan Orsec bi nga xamante ni euh, déclenché nañ ko def na la mu war a def en tout cas un bilan satisfaisant en tant que yow maire bu Kër Massar euh, Nord da ngay dëggal wala est-ce que sentir ngeen bu baax li nga xamante ni moom mooy plan Orsec bi Antoine Félix Diome di wax ni am nañ ci bilan bu satisfaisant. non je suis désolé de contredire le, le ministre en tout cas au niveau de Kër Massar Nord plan ORSEC bi ñun gisaguñ ko donc amul lenn li nga xamante ne si plan ORSEC bi ñoo ngi koy def pour que jàppale askanu Kër Massar donc euh, plan ORSEC bu doxoon je pense que askan bi duñ nekk si jafe-jafe yi nga xamante ne si moom la ñu nekkee wax dëgg rek moo tax nag ñuy wax parce que ku génn sa buntu kër xam ne ndox bi bëri na donc plan ORSEC bu doxoon nu mu waree dox wax dëgg yàlla boo génnee di nga dem fi nga war a dem yëpp te doo gis pepp ndox si mbedd bi donc plan ORSEC bi wax dëgg yàlla bu ñu génnee li nga xamante ne si mooy appartenance politique yeeg lépp wax dëgg yàlla na ngi taxaw nag wax ni carrément affaire yi doxut parce que bu doxoon wax dëgg yàlla ndox bi du bëree nii mu bëree bii si dëkk bi. doxul est-ce que yéen gisoo leen sentiroo leen plan ORSEC est-ce que jéem ngeen a euh, est-ce que as euh, associé nañ si plutôt sax euh, les maires comme yow par exemple nga nekk maire bu Kër Massar Nord est-ce que associé nañ la ci plan ORSEC bi leen. waaw plan ORSEC bi li ma wax sànq rek mooy déclassé guñ ko Kër Massar mais si semaine bi ñu génn wax dëgg neex yàlla tamit euh, li may wax sànq rek bu ñu génnee li nga xamante ne mooy politique gouverneur bu Dakar ñëw na fi parce que le ministre même ñëwut mais gouverneur bu Dakar ñëw na fi ak sapeurs yi ñu def tour quartier yi nga xamante ne ñoo inondé mais ba léegi nii le plan ORSEC n'est pas effectif maanaam commencé guñu liggéey ci semaine bi passé la ñuy doog a gis gouverneur yàlla mu ñëw ànd ak les autorités yi nga xamante ne ñoo nekk Kër Massar fii. préfet sous préfet loolu nag ñu koy rafetlu mais wax dëgg neex yàlla liggéey bi comme nu mu waree commencé gudd ñoo nañ def visite mais ba léegi amul lenn li nga xamante ne def nañ ko ci liggéey bi commencé guñ ko. est-ce que euh, tamit euh, wàllum départementalisation bu Kër Massar bi nga xam ne euh, si nawet yu wala si inondation yu métti ci la ko président Sall euh, jëlee woon décision pour def Kër Massar département est-ce que tey jii décision boobu lee am na njeexital wala askan wi nekk foofu le sentir nañ ci dara surtout ci wàllum inondation yi est-ce que am na impact bu positif en fait. non wax dëgg yàlla Kër Masar moom ndox bi bëri na trop trop trop trop trop et je pense que li ñu doon dund daaw moom ni dundaat ren kon pour wax ni am na changement moom du mën a nekk amagul changement bi nga xamante ne c'est changement positif amagul changement boobu et di wax rek euh, li nga xamante ne mooy ay projet tamit nekk fii si Kër Masar jëm si wàllum canalisation bi en ñu gaaw si nu mu gën a gaawee parce que wax dëgg yàlla Kër Massar sonn nañ parce que xam nga problème Kër Massar du 2012. Mhm. problème Kër Massar mu ngi commencé 2005 ba léegi presque vingt ans ku mun a régler inondation wax dëgg yàlla war te métti na ba si kanamu yàlla askan wi sonn nañ bu baax a baax a baax. pour yow nan lañ si mën a trouver solution solution bi pour yow fan la mën solution bi fu mu mun a jógee comme nit ñi dëkk nañ ba pare mooy defar ay canalisation defar ay pavé defar ay pante yi nga xamante ne ndox bi dina ruisseler normalement dem fu mu war a dem ut ay exutoire yi nga xamante ne dinañ recevoir ndox bi parce que tamit euh, boo seedaanee ba nit ki dëkk fi mu war sa dëkk yow état yaa war a jóg tamit jël ay matuwaay euh, xool naka la askan boobu di dëkkee ci jàmm naka la askan boobu di dëkkee ci cadre bi nga xamante ne cadre bu baax lay doon donc tey jii solution yi ak Kër Massar du lenn lu dul canalisation bu ñu waxantee dëgg rek canalisation mooy mën saafara problème inondation ci Kër Massar. Euh, ñu gis ni njiitu réewu Sénégal amoon euh, premier plan euh, décennal de lutte contre les inondations mu daal di déclenché waat ne deuxième plan bi ñu waroon démarrer en deux mille vingt dañ koy accélérer daar daar ngir problème inondation yi nga xam ñu ngi koy dund lu ci sa xalaat aadama Sarr. waaw problème inondation yi problème décennal bi li sama xalaat mooy wax naa ko sànq si njëlbeen boo ñu audité première phase wax dëgg neex yàlla parce que mënuñu jógee si première phase audité wuñ ko te résultat yi nga xamante ne moom dañ doon xaar amuñu ko ñu bëgg a jàll si deuxième phase parce que day yomb toog parce que xaalis boobu ñu si injecté aussi xaalisu askan wi la c'est des deniers publics fépp fi nga xamante ne dugg na si askan wi dafa war a xam lan la naka lañ ko tëralee donc euh, am na solo ñu dugg si phase numéro deux bi mais aussi am na solo ñu taxaw auditer phase numéro une bi. Euh, voilà beneen euh, tamit euh, laaj buñ lay laaj yow en tant que maire lan nga def ca Kër masaar ban taxawaay nga am par rapport ak sinistre yi lan la mairie bu Kër Massar Nord def pour ñi nga xam ne ñu ngi dund lu métti actuellement ndax inondation yi. waaw xam nga inondation moom nekkul compétence boo xamante ne mairie moo ko yor mais boo dëkkee Kër masaar noor dëkk Kër Massar. di nga xam bu baax Adama Sarr ak ñi mu àndal nag lan la ñuy def ci inondation yi parce que ban taw bi tawee taw bu njëkk mairie Kër Massar dafa ut ay moto pompe yoo xamante ne moo ko utal boppam mettre que à la disposition des population pour soulager leen am nañ si lu toll fukki moto pompe ak juróom quinze moto pompe yi nga xamante ne mairie bi moo ko moomoon boppam pour jàppale askanu Kër Massar donte inondation yi nag bokkul ci compétence am loolu bu weesoo également en cas de besoin maanaam bu askan wi soxlaa rek dinañ ut suñu tractopelle wala ut suñu pocalin pour xool si nga xamante ne dañ kaa war a xàlli pour ndox bi dem ndox bi dem bu weesoo loolu tamit ñoo ngi dugg si askan wi di leen mastawu parce que tamit jafe-jafe yi métti na mënuñu lu dul nekk si wetu askan wi pour wu leen pour jàppale leen ci situation bu difficile bi nga xamante ne si moom la ñuy dund. Euh, ñu gis ni tamit ci jamonoy nawet bi aadama euh, marché yi dafay daal di salte trop euh, yow ci sa mairie lan ngeen def pour marché yi mën a set parce que bu tawee fépp taa yi tamit kenn mu faa dem souvent sax ñuy pointer du doigt mairie yow sa niveau lan nga def pour marché yi mën a set. waaw boo xoolee Kër Massar Nord dafa doon commune bu mag mun naa ne mooy commune bu gën a mag ci Dakar wala deuxième commune bu gën a mag ci Dakar avec quatre vingt quatorze quartiers Kër Massar Nord am na sept marchés euh, ñun ba ñu toogee nañuy woote li nga xamante ne mooy gestion inclusive et participative maanaam si wàllum nettoiement marché bi li nga xamante ne xaalis bu ñuy fay ñiy nettoyé si maire bi lay jógee mais ni ñu koy nettoyé ak ni ñu koy tëralee loolu nañ ko bàyyi si délégué marché yi ak organisation marché yi. en interne loolu moo tax xëy na amuñu problème marché yi salte ak Kër Massar Nord parce que délégué marché bu nekk ak seen structure interne yu ñu am ñoom ñoo xool naka la ñuy euh, defaree seen i marché naka la ñuy tonnee mbalit bi ba mbalit bi du def ci marché yi saltel ko mais nag si ginnaaw mairie bi mooy ñëw fay chaque jour wala chaque mois li nga xamante ne si mooy service yi ñëw di nettoyer mais gestion bi nag nañ ko nga xamante ne si mooy organisation interne bu marché bi parce que loolu woote woon gestion inclusive et participative moo tax naka ngeen bëggee ñu ne ñu bu ñu sañoon na ngeen ñuy bàyyi ñun suñu bokk ñu xool naka la ñuy dindee suñu mbalit li ñu laaj mairie bi rek mooy bu fay jotee ngeen ñëw fay te loolu lañ leen nangul xëy na lool moo ñu jàppale ba benn marché à Kër Massar Nord salté Euh, peut-être euh, question dañ lay bàyyi nga lancer appel euh, par rapport ak actuellement askanu Kër Massar li ñuy dund am na appel boo bëgg a peut-être le président de la République. waaw appel bu njëkk mooy di mastawu waa Kër Massar yëpp waa Kër masaar Nord yépp ñoo ngi leen di mastawu ci inondation yi métti na wax dëgg yàlla metti na trop ñun ñi ba mu commencé taw ba léegi tooguñu benn yoon xam nañ li nga xamante ne moom la askan wi di dund ñun ñu koy dund parce que Kër Massar la ñu dëkk ñun ñu koy dund ak ñoom. di taa ak ñoom di ko dund ñoom di leen maso bu baax a baax a baax a baax di wax ni rek inondation compétence su état la moo tax tey dañuy wax waa état di Sénégal ñu ñëw jàppale waa Kër masaar noonu jàppale leen pour soulager leen ba ndox bi nga xamante ne moo ñuy wàcc ci jamono yi ñu nekk ndox bi dañ leen sonal mais tamit ñu xalaata def ay canalisation ba li nga xamante ne mooy wàllu inondation nekk un mauvais souvenir bi nga xamante ne dañ koy bàyyi seeni a pour askanu Kër Massar wala pour askanu Sénégal yëpp. Adama Sarr Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. waa kay maa ngi leen di jaajëfal waa Rewmi FM. may fàttali yow yaay maire bu Kër Massar Nord. waa kay jërëjëf effectivement.